ay maqaam yàllaw bisimil ilaay ci barkeb say ci fàddilu mi boru yàlla doldinoo ay maqaam yàllaw euh, fan yi yëpp dëkk bi dafa am yëngatu moo waral fi sorti ba waree woon defuñu ko ñu tëju woon di ñaan yàlla yàlla daral coow li waaye ci guddi gi am yu ci feeñaat muy fitna buy jogaat fitna soo si di jogaat nag moo tax ma woo leen ci kër gi ngeen ñëw pour ma waxtaan ak waa réew mi loolu ci xalwa la nu nekkoon waaye ci biir xalwa gi xalwa gi di wàcc ma gisoon ne coow li wàccoon na waaye dama gisaat beneen fitna di jogaat te fitna bii di jog baaxul fitna boobu danañ ci andi ay waxtaan andi ci ay leeral mais laata loolu sëñ Cissé lan moo mën a jariñ doomu aadama bi ci dundam ci wàllum ñaan yàlla ndax dégg naa ñaan yàlla dana fekk koo xamante ni day nekk ci waxtoom war a faatu ñaan yóbbu ko ci mu gudd fan. ñaan yàlla dana fekk nit ki mu nekk ci waxtu woo xamante ni day war a gudd fan ñaan yàlla yokk li nga xamante ni mooy aw fanam bi nga duggee xalwa jëfandikoo li nga xamante ne mooy secret bi la yàlla may lan nga gis ne mooy njariñ li mën a jariñ doomu aadama bi ci ñaan ñëpp gëm nañ ne yàlla mooy kiy rey jaam bi ñëpp gëm nañ ne yàlla bind ne kullu nafsul saayiqatul mawti waaye kullu man alayha faanin ku yor bakkan di dund moo xam chrétien la moo xam musulman la moo xam ku mën a doon gëm na ne moom deelu am la gëm nañ ne it ne kenn lañu ñu war a ñaan muy borom bi subhanahu wa taala te borom bi téereem bi mu wàcce muy alquranul karim wàccewul ko lu dul jàmm ñi di am jàmm ku ci jaaxle xam fa ngay jaar dem fa ñaan ko borom bi defal la ko ñaan yàlla li mu indi ci ay ngëneel ci doomu aadama munuñ ko toog di ko di ko tege ci benn émission waaye aw ñaan ak aw sarax li muy def ci doomu aadama kenn munu koo toog di ko misaal waaye daal wil yëgal te wóor ne tey ci tey am na ñaari baat yoo xam ne boo ko doon tudd yàlla dana la dimbale sa fan wi di gudd gis nga dee yii di xew léegi deewu caaxaan kese la nit day ñag boppam nit day fonk boppam ndax saay-saay si bari na nu bari goo xam ne boo ñagul sa bopp fonkoo sa bopp dinañ la dugal ci loo xam ne dangay xëy rek dee ñaan yàlla li muy yokk ci xam nga foog nañ ne ñaan yàlla xaalis rek la man ñaan yàlla dana yokk fan dana la musal ci deegu ñaaw. suñ Cissé ñi naan borom finance yàlla daf ko may ci wàllum assuré nit bu ñu nee assuré nit mooy samp sa mbër bu ñu nee mbër mën na nekk élève bi mën na nekk directeur bi mën na nekk sax jaaykatu beñe bi mën na nekk jaaykatu màdd bi waaye suñ Cissé dégg naa day samp nit yëkkati ko te nit ko kenn du man ci moom dara te lu mu yootu jot ko wàllum samp nit assuré ko bëgg naa nga andi ci ay leeral. xam yi da ngay man yàlla daa def ne sama wax mën naa bari xadar lool waaye lu ma lay wax xam-xam lay doon ndax wax naa ba tàyyi ne fii ci réew mi di Sénégal benn nit rek lañ fi déggaan mu ne dama yor prise di ko branché muy sëñ Mansour borom daara ji man dong ngay dégg ma ne la garante naa la nangami at bu nangami at yooyu jeexe nag faaw nga renouveler waa dossier bi man sëriñ si mu sëriñ Babacar Si du nu ko bàkkoo nag waaye dañuy sant borom bi ndax gis nga xam-xam bu la jaralee dara boo ci doxee rek yàlla sagal la ak jaam yi ndax dafa am benn aaya ñu miin ko lool ci alxuraan dina dee dimbale jaam ci mboole mi façon gis nga wa in yakaadu la siina këfaroo li yaslaxoonaka bi abu saarim lama samoo sikra wa yaquluna in wala majnoon wa ma huwa ila sikaru lil alamin yow bu dee kaaraange goo xam ne nga bëgg goo xam ne ku la fel daanu ci suuf yi xew ci jamono jii moom doo ci bokk ni toog a toog di ko def lu la neex te doo ko yëg ku la ko def fa mu toog lay toog di ko gis xam nga pacc semmeñ pàcc semmeñ waaw mhm. pàcc boo ko jëlee tabar yaddaa mhm. alam tara mhm. ñaari ku ne xam ne li leen tax a jóg ah. bu dee danga nga bëgg ku la liggéey wàccub liggéey tabat yaddaa alamtara moom la ñuy bind ci pàccu sémmiñ ba duma ko yeggale ca daaneel ba ndax saay-saay si danoo bari waaye yii ñaar boo ko bindee am noon taxaw fii di la sonnal yow bindal ba pare la war a ànd nga def ko rek teg ko ci safara si bu soobee yàlla balaa ñee wax moom jant bi wàcc na mbooleem ku amoon yéenu ju ñaaw ci yow moom day dem bàq yi léegi day dee day dee wàllum xeex ci lay dox xeex ndax réew mi dafa laaj xeex ndax saay-saay si danoo bari danoo fekk jàmm bu toog di waxal yàlla di liggéeyal yàlla ñu bëgg laa indil fitna. mais jàppoon ne politiciens yi tamit xeeti gàllaaj yu mel nii ñu ngi koy defar seen bopp rek da ngay dégg ñaan la sacrifice sacrifice te dégg naa alxuraan am na bagage su ci nekk yoo xamante ni moo gën a garaaw moo gën a neex pour jafe-jafeel doomu aadama. xam nga yi efficace yi ñuy wax nii yu xonq yii nii benn efficace ci. tey ci tey alaaji dégg yàlla dafa dogal ne. tey ci tey jii man bu ma Médoune Diouf tooñoon ma bëgg rëq ndiggam fii ma toog laay rëqee ndiggam na sama gaz bi tàkk léegi ma yëkkati sama alawaay xànjeer dagg xaati mu musalas def ci turu Médoune Diouf Médoune Diouf dana ma woo léegi téléphone na ma sëriñ si sa baal maaq alal la ma bañ ma ko jox bu ma tegee sama gaz teg sama xaa euh, alawa dagg sama musalas Médoune may woo léegi na ma sëriñ bi foo ne man xajuma ci waxe caaxaan yii gis nga ñiy waxtaane yu xonq yi xamuñ dara gis nga li efficace xam nga lan la muhammadu rasulullahi walasina maahu asidaa wa alal kufaari ruhamaahu baynahum taraawum rukaan sujudan yabtaqoona fadlan min allahi wa ridwaana simaahum fi wujuhi min asaari sujudi saalika masaluhum fi tawrita wa masaluhum fi injili kasaara axraja sato fa taxla yux jibu suraa li gis nga aaya boobu fa déparé mm-hmm. ba aaya ba di dalee ba fa aaya ba di daanoo aaya bu ne miim gune ubbil ma ko ca Muhammadu Rasulullah ba fa mi daanoo ca aaya ba fa mu daanoo miim gu ne dugalal alam ci biir ba Muhammadu Rasulullah daanu jeex da ngay naan sàngara bëgg ba sàngara da ngay tux yàmba bëgg koo ba noonu dalaa topp di la yàqal dëmm ci sa mbir seytaane yi nekk ci dëkk bi ci sa mbir Muhammadu Rasulullah kon ñi nga xam ne ñooy jël yeneen yi di ko promenade di ci wax dañoo xamul alxuraan alxuraan kenn du ko xam di wax waxi caaxaan yi sëñ bi li ngay jox mbër yi ñu koy raxasoo di dóor seen adversaire ñuy daanu ba am na ci mbër mu ràññee moo xamante ni duma tudd turam waaye secret làmb tamit yàlla may na la ci ba am na ñoo xamante ni dañ naan sëñ Cissé bu sampee mbër jàppale ne mbër ma yàlla da koy defal li nga xamante mooy ndam alxuraan la wala sunguf la ndax dégg nañ ne da ngay liggéey ci wàllum sunguf ak wàllum xànc ak reen loolu ban méthode la. sa loxo bu ma ko suuree foo dóor mu toj bu ma la suuree ci say loxo foo dóor day toj suur say loxo rek bu ma la ko defalee barki Seydi Aboubacar koo dóor mu toj matul nodd gi di ko seede bu ma la suuralee say loxo koo dóor mu toj man dama di soli doomi Saalum Saalum sa feer ci Saalum Saalum dama xam-xam-xam mën a wuti xam-xam. mën a wuti xam-xam xam luy xam-xam mën a ñaan yàlla yi teg ci nag xam nga yàlla dañ koy ñaan waaye xam nan ngay ñaanee yàlla xam yàlla yan waxtu nga war a gisee moom yan waxtu nga ko war a jox dossier yi code bi boo baxee chiffre rek perte waaye xam-xamu làmb xam-xamu fubal dama ne dootuma ci waxtaane ti ndax lu ne def naa ko ci nga tubaab bi da koo defar te xamul ne wàllum lasraar lay misaal kon àdduna lépp composition la ak ay code lépp crédit moo koy def. waaye yow loola borom bi day wane ne jàmm bi ndax ab tubaab nga fële ca réew ma man maa ngi fii Serigne Cissé fexe ba waa bitim réew di ma gis te li ko def nit a ko def kon yow nit ki bu sukkandikoo ci borom bi na la lii mën naa koo def. rek rafetal njort ca la yàlla may tubaab ba ba mën a def lii jàppal ne xam-xam boobu moo nekk ci Serigne Cissé ba Serigne Cissé di jàllale lii. mais ñenn ci sénégalais yi ñàkk ñàkk gëm seen bopp gëm nit ku weex a tey jii boo feebaree dem hôpital ñu defal la analyse ne la da ngaa jabet wala tension nga gëm ko ci saase te boo wooyee ab sëriñ mu xoolal la ne lii ngay sikki sàkk naan est-ce tandu ko ñàkk gëm sa bopp nga xam. sëriñ a dàq gis médecin sëriñ man médecin moo ko ëpp niveau. niveau niveau yi dañoo wutee niveau yi li tax mu wutee kii dafa taxaw ci borom bi la sukkandiku borom bee koy xamal li ci moom direct. médecin dana def da nga amee benn feebar ci sa yaram bi mu dugal lim yaakaar ci ay machine yëpp doo ko gis sëñ si sa wax benn aaya xam li ne ci yaw kon dafa si am yoo xam ne gis nga ñi ngay gis ñuy gëmadi gëmadi lu xam nga lu leen war ñu seen cër ci yàlla bariwut gis nga ku doyloo yàlla man léegoo léegi nit nekk ci bidéo na sëñ Cissé yow mi may ñaanal dama la bëgg euh, bëgg boo ma ñaanalee ba ma gis ma soog laa jox ma ne ko ci carte nga ne coupé sa téléphone bi man kartawu ma li ma la wax doy na la jox ma doyul la seetil ku la doy man du ma promata promenade ci yenn yi comprendre nga kon dafa am yoo xam ne nit ñi nañ ko ba nañ ko ba te gëm li ñu am te xam li ñu am gis nga nit bu xamul li mu am foxe ko day yomb waaye boo xamee li nga am kenn du la foxe mbokk yi sëñ Cissé borom Vidance sëñ Cissé général dégg ngeen li nga xamante ni discours na ko numéro téléphone am mi ngi noonu suuf écran bi 77 297 69 51 wala 77 035 66 64 wala 78 018 55 65 dégg ngeen borom Vidance général bi li mu waxtaanee sëñ bi ñu ñëw ci lii lëmbe dëkk bi. waa association and sàmm jikko yi ki nga xamante ne mooy Oustaz Makhtar Sarr bu dee TV am wax joo xamante ni génn na ko jëmee ko ci kii di Waly Seck. waaye nag def na li nga xamante ne mooy plainte bi ba moom génn na leeral na ne jot na plainte am ba le 11 août la war tontu ji yow nag gis nañu ne léeg ñenn ci faramaare ni dañuy bëri lu ñu taxaw di la tudd ci seen i émission di la tudd ci si li nga xamante ni mooy seeni way di la tagg ba gis nañ ci am na koo xamante ni ba amee tolof tolof ci wàllu yoon benn comédien yow bokk nga ci ñi nga xamante ni ñoo ko ñaanal ba ñu bàyyi ko. bi nga gisee wax ji en tant que borom xam en tant que nit koo xamante ni day dox ci lu rafet ban jàngat nga ci mën a andi. Euh, bu may jël exemple ci wàllu wi domaine bi ñu nekkee dama koy jël ci ku mel ni yuusu Ndour ndax defe naa ne bu dee wax ju ñaaw lu ne wax nañ ko ko moom bu dee jëfin wu ñaaw lu ne jëfee nañ ko ko waaye plainte la ma ca waxoon ca Pawlish mbay laa ci waxaat dafa doon loo xam ne dafa war di mujj waru di njëkk wax na bu jibee nanu fexe teel koo arrêté ndax boo di xalee am ci yoon woo jëm dangay moytu di yóbboye ci yoon ndax mag ñi dañoo bañ ba tuddee ko fa mbaxana doonee benn fa la ko mag ñi tuddee fa mbaxana doonee benn koo fa yóbbu dana la jàppeem noonu te duhu la noonu ah. koo fa taxawal muy layoo dana la jàppee am noon te duhu la noonam dafa am lu dugg seen diggante ngeen bëgg koo rafetal nga ne kon nañ fa dajee ji waaye dafa diis ci nit ñi ndax man bëggatuma sax di wax di tudd benn musicien bëggatuma ko benn musicien alaaji Medoune Diouf maa ko bëggatul di wax ci réew mi di préciser ci turam bëggatuma ko man Serigne Cissé mu Serigne Babacar li tax loolu du lenn man xajuma ci ay caaxaan xajuma ci fitna xajuma ci coow xajuma ci caaxaan ndax man bu dee am na ku ma yaakaar ci réew mii ba di ko jëlal fu ma mën a jël di ko jëlal paar kii ci sama ginnaaw la muy seexul xalifa sëriñ kër si leneen li ci des fekkee leen ci boole ñeem ñépp waaye lépp lu yee fitna ci réew war nan koo moytu man nag musicien yëpp ci réew mi di woy samay xarit lanu waaye ay waxi musicien man maa baxatul xel di ci communiquer maa baxatul xel di communiquer ci ay woykat ndax xam nga lu tax man sama jëmm ji daraay caaxaan newu ci sama jëmm ji xaala laahu xaala rasul ma sëñ Tuubaa nee na alaaji Maalik nee na Makunta Njaasaan nee na rekk ne ci sama jëmm ji sëñ bi am na ñoo xamante ni dañuy def sëriñ bu ñu gis rek dem na ko ñaanal ma nga ne ma ñaan yàlla comme école la da ngay suivre benn matière suivre nit ki mu téye sa rawaan xam ko man laa yokk léeg-léeg nga dem ci sëriñ mu jox la bayre nga génn xëppoo ko nekkati du bayre coow la mu dugal la ci yenn si bay dellul ginnaaw ci li ma la waxoon bërki démb dama ne bayre danañ la ko jox foog ne indi nañ la lu baax fekk indil nañ la fitna nga sangoo ko coow topp coow la coowal jàmm la wala coomal coo coowal musiba la waaye am na si yenn coow yoo xam ne musiba la sang bii di Maxtaar Sarr tey moom laay waxal yàlla def na ne nga donga daara nga ci réew mi nga dëkk te réew mi am na fu la teg ñu ngi lay bàyyi xel ci lan sa matière mu rafet ci xam-xam matière mu rafet moom nag ci xam-xam réew mi bëgg nañu la sopp nañ la pelenti am na fu mu bayekoo ñëw ci yow sant yàlla la may lancé nag foofa mooy ne li tax may tudd turu musiciens yi ak jàmm tax ma koy tudd waali sunu xarit la soppe la ànd jàmm la nit ku baax la ku mën a def lu baax. di wax lu baax. waaye am na si yenn yoo xam ne cat la ci doomu aadama. nga jàpp ne def def la. barki yonentu yàlla Muhammad cat la ci doomu aadama. Wally Seck nga fii ci këram. boo demoon laaj ko na ko li dal Amary Badiane dal am Thiul lu ko indi ci kaw seen ba ba léegi mënul la ko wax ba ci biir staff bi mënuñ la ko wax. yàlla na nu yàlla musal si cat. coow loolu am gisuma waali dégguma waali ma tëju ci sama biir di ci ñaan ngir yàlla seddal coow li ma am kenn ku ma jokkoo na ko nu coow li mel wàññeeku na wala wàññeekuwut mu ne ma démb ak tey de sedd na ndax vidéo yi wàññeeku na ndax senegal ci vidéo la ñuy coowee deux heures ma ne taxawal nag ma am naafal yu ma def yëkkati sama téléphone coow am benn affiche bu ma gisaat ci wàllu yoon diggante Wally Seck ak Makhtar Makhtar Sakho mm-hmm. Makhtar Sarr ma ne waa quest mm-hmm. lii nag baa ma ciy tëjuwaat di ci def lenn ci wàllu ñaan yàlla mm-hmm. danaa wax ak réew mi ne nanu def ndànk ah. dangaa sonn ci fay coow ndax man yàlla daa def may généralu sëriñ Babacar Sy boo xam ne na bu ma gis ci réew mi dinaa génn wax la may la may génn loo wax nag mooy am delloo si jàmm delloo si xel yi ndax lii bërki démb bu dama génn na coow la jeex yàlla def coow la jeex kenn waxtaanee tut affaire de borom ñaari tur yi semaine bii nag coow li bari lool waali yàlla na fan yu gudd yàlla nga wér yàlla nga am jàmm yen bi it yàlla na diis gan laa lay ñaanal te yàlla defal la ci defal la ci tiis sëñ Mansour nee na ñaanal nit naan ko yàlla na yen bi woyof si ñàkk xam ñaan la yàlla na yen bi woyof sëñ Mansour nee na si ñàkk xam ñaan la yen bu woyof lu ko nit di doxee yàlla na diis gan te bu diisee yàlla nga am teeñ la ma koy ñaan falaa jëm man sama wax duma ko coroxo coroxo ndax réew mi may déglu te kilifa rek a may déglu borom xol bon nag mënu maa déglu borom xol bu bon mënu maa déglu ndax réew mi dafa bari ay naafiq ki seytaane ki rambaaje ki booley bokk rekk a tas suñu réew mi di Sénégal naafiq yi rambaaj yi taskatu diggante yi jaxasekatu nit ñi ñoo tas réew mi kilifa gu fi sonn seytaane yi la sësa la sonnal kilifa gu sonn ci réew mi seytaane yi la wër la sonnal ndax ñoo lay dugal ci benn dossier ba nga dugg ca ñu reculer baxee la dossier ba nag. mooy borom xam-xam boo xamante ni nangut a jëfe xam-xamam ak jongoma ju amul kilifa ak yaafus mu nangut a liggéey ku fi tardé rek ñu ñëw la tardeel. Makhtar sekk Mboro. ñetti baat yi nga wax moo ko waxoon. Mm-hmm. am réew ko mën a tas. Mm-hmm. jongamaay biir dëkk borom alal ci biir dëkk borom boutique ci biir dëkk lu tasaaroo ci réew ma ñoo ko tas ndax ñooy xam lépp ak sëriñub tareex boole ko ne ku mel ni ñun ndax ñooy yëg dossier yëpp yii nag bu dajee ci nit ki waali di doomi réew mi Maxtaar euh, euh, Sarr di doomi réew mi ñu ne lan moo leen plainte ñu ne ci coow la ñu plainte wante ñu naan la douze lañ wuyoog la nàngam waali na dindi plainte bi la ma waxoon police ki ko plainte woon Pawlish ka ko pelante bi mu ko pelantee dama ne ko yee nga fi na ci sa jëmm ji dindil pelante bi loolu laay waxaat Wally Seck na dindi pelante bi wax ji nag mën na rëy ci dégg-dégg ndax la ma ci bëggoon a def dafa fekk ma tëju woon nekk ci wàllu xalwa am lu ma doon liggéey waaye na Wally dindi pelante bi lii baaxut ci moom baaxut ci moom xale la bu réew mi bëgg am fuñ koo teg ni ñu bëggu ko bu ko saytaane dugg bañ naan moo pelenti diw lu ko waaye man a wax na ko ba lu ko waaye mën a wax ci àdduna na ko ba xam nga kan kan kan kan moo kan moo jar a sóoraale te lu waaye di def na ci ñëj jël benn témoignage muy ki ñu tiim ñun ñëpp muy yàlla borom bi subhaanahu wa ku jubal yàlla xam na ku dëngal yàlla xam na muy imaam Maxtaar Gay mi jiite Jamra muy mboolem waa jambra ñam ñëpp mboolem waa Faramaren ñoom ñëpp mboolem ustaas yi ñoom ñëpp ku ci jubal borom bi xam na ku ci dëngal borom bi xam na. waaye lu ci waay di jëf na nga jëf te borom bi rek tax nga jël témoignage borom bi waaye wàllum yoon nañ koy mujjee ci sunu dëkk bii te lan moo tax ne. man li ma jaaxal man Serigne Cissé mu Seydi Aboubacar li ma jaaxal minute bu ne. nga dégg ay kilifa jàppante jëm fa mbaxana doone benn. cat nag baaxut man waa lii xew ci moom fan yii jàppewuma ko lenn lu dul cat boo xam ne moo jëm ci moom. mais 2021 dafa tàng jër jër jër jër loolu muy sëñ faaw nga andi ci ay leer. tàng gi yëpp ñoo ko tàngal du rab du dëmm du jinne ñoo ko tàngal suñ xol yee bon lu ñëw sëriñi misaal ko di ko tuddee rabaki jimme gis nga alaaji Medoune juuf mii ni ko yàlla def def na ko ko def ko ko ndax nga noppalu. waaye boo ko deful ni ko yàlla def yàlla di ko gën a yéege man medun bu ma koy waxal lu bon medun xam na li ci jëmmam ji may waxal medun lu bon xam na li ci jëmmam ji ma ko nga koy waxal Serigne Cissé Serigne Cissé xam na digganteem ak boromam man yooyu sama yoon nekku ci li ma mantu dégg kay mooy ne taxaw di xotti xormay mag ñi wax naa fi bërki démb ci sama benn waxtaan ne gis nga mag ñi ku ci xotti seen ma ba ma génn ci yow def ci yow déclaration réew mi danañ danañ génn ci yow. kon ci ku mel ni Matar Sarr di xale bu ndaw Wally sekk di xale bu ndaw ñu xëy di waxante ci wàllum yoon convocation ñaaw na. man coon Seck yàlla na yàlla. yërëm ko yàlla xare ko aljanna danoo toog mu ne ma waali sama doom la moom ngay xam naa yéen a tolloo génération dimbale ko ma ne ah mu ne waaw looloo waral mbir yi waaye xam nga ku ma teral sëriñ Babacar Si xam nga ku ma sagal sëriñ Babacar Si xam nga ku gindi sëriñ Babacar Si ki tax ma ñeme tax ma am fit xam ki ma doon yaakaaruma kenn ku dul moom sëriñ Babacar Si sëriñ bi nawet bi soobu nañ ci ndax taw na bërkaat yi démb waaye démb ak daanaka tawul ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy métti bopp sonal na Sénégalais yi rawatina jigéen maam yóbbante ñu ne ma boo demee ci sëñ wax ko mu joxe ban saafara moo mën a faj li nga xamante ni mooy métti bopp ndax bokk na ci li nga xamante ni tawat la. dafa am tabaski ba mosaan a jot ñooñ problème boobu lañ am am na ñu am beneen problème te yaakaaruñ ci ku du Serigne te ñun ñun liñ man mooy dimbale nit ñi ci xam-xam ñi nga xam ne dañoo am problème mu xar te yaakaaruñ ci kenn ku dul borom mbaar mi jël leen 66 yaa rasaaxu boo dib jullikat jullik farata goo julli yaara saaxu 66. boo ko defee. Mm. bu dee ñetti jabar nga amee war a jox ñetti jabar yëpp xar. Mm. xar dina la ñëwal ci ñu gën a yombee. yaara saaxu 66. Mm. boo jullee ba taaya ba ba ba ba def sa euh, euh, kii yi nga war a def yëpp. nga doog a jël nag ñaan. boo ko defee nag bul ko def jëmale ba xëddiyal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. te yéene ci say aajo yàlla jox la xar. méttitu bopp nag bari na waaye li koy dind ci nit ñi waxoon naa leen ko alaaji dégg wax ji buñ ko daraay xale yu jigéen duñ da sangu farata xale góor yi xamuñ nu ñee sangoo farata xale jigéen yi medun tii lii mooy yóbbulu bis bi tey lii lii mooy yóbbulu bis bi da dee dégg koo xam ne ñu ne méttitu bopp la am ñu jiiñ ko rab du rab kanaa yëgoo ne góor buy sëy bu yeggee fa mu bëgg a yegg mbooleem fu karaw ne day ubbeeku ci jëmmam mooy waral ñu bëgg booy sangu farata nga tànk ñaari loxoy ndox dóor ci sa bopp bi fëgg fëggal ko bam na ñetti yoon say bopp karaw yi mbooleem fu ubbeeku woon mën a tëju xale yi lii lañ teyal duñ masaa sax duñ fa jaar mm-hmm. nga di jigéen ka saalika naka noonu nga dem ci sëriñ bu jàngul na xamul luy saraxa mu ne rabal a dugg te fekk waxu dëgg dafa xamul la la dal bu ñëwee seet si ko man mel ni sëriñ Cissé mu ne ko kaay ndax xam nga nu ñuy sangoo farata mu ne ko déedéet mu won ko nanuy sangoo farata fexe sang ko fii ci kër gi tàggu méttitu bopp mu ne sëriñ bi ay te fekk li doon problème am gis nga nag bu dee méttitu bopp wi xew jamono bii changement de climat la du lenn du rab du du jinne changement de climat la. du rab ku ko fi jiñ rab tey sëriñ. Mm-hmm. yaa ngi wax loo xamut changement de climat la moo nekk Amérique moo nekk fii tàngaay ba fa ne tey mu tàng suba mu sedd mooy bëgg a tas waa réew mi. Mm-hmm. beneen bi ci des xale yi li tax ñu amee méttitu bopp woo xam ne chaque heure la leen di daaneel nañ jéem a jàngi nu ñuy sangoo farata kuy góor nan nga ko seeti kuy jigéen na nga ko seeti jéem koo xam. Mm-hmm. boo ko xamee di ko def méttitu bopp yi doon la dal dina dëñ ci yow waaye boo ko mënoon nag waxuma ne ah. da nga dund ba dee sa métti bopp du dañ. sëñ bi bëgg naa tamit ñu ñëw ci li nga xamante ni mooy njaq yi njaq yi gis naa tey ñu lal ci li nga xamante ne mooy perkal bu gudd gudd gudd gudd gudd gudd secret njaq yi nga ne ma ku bëgg mucc dina sangu si fii ci kër gi am na yenn cas yoo xamante ni day urgence njaq yi rek moo ci mën dara bëgg naa nga indi ci ab leeral ci loolu. waaw xam nga réew mi dafa bëri ay saay-saay ay yàqkat ak i naafiq ak i rambaaj mm-hmm. waaye nag gis nga sëñ Mansour sama sang ba dafa waxoon ne. waaye yal na yàlla yokk leeram borom daara jee bari xam-xam te baax te yiw te mën a sagal nit sama sëriñ ba sëriñ maam Malick bu sëñ Mansour yàlla na fi yàgg te wér <laughs> ma siise euh, ma naam mu ne ma réew mii di Sénégal boo fi nekkee boo amul fit danañ la foxe amul a xam-xam ñu nax la boo amul fit nag ñu tiital la génne la réew mi waaye njaq yi la ko fa ba mooy ndaw ña bëgg a xam fi ñu jëm te bëgg yegg ci yeggin wu rafet laa ko fi baxal mag ñi kalu mënuñoo dem laa ko fi baxal ku bëgg raw say morom boo fi ñëwee raw say morom propagande kenn kenn kenn daj propagande ma ko ndax li yàlla di sagalee as julli sagalee na ma ko waaye lii bëgg a dugg ci diggante bii mm-hmm. ko ci Wally Seck jëm ci waaye ay li ma xam bu ko ñi xamoon danañ dox danañ ñaan danañ def plateau wu yi li war a def waxtaan nag mooy lii jog nii mm-hmm. yiñ daan waxtaanee benn du ci waxtaan mm-hmm. maa ngi dénoncé ku mel ni alaaji Mansour Mbaye mm-hmm. alaaji Mansour Mbaye moom mi nga xam ne mooy président communicateur mbooleem kuy wax fii di wax fii ci dëkk bi moo lay may ndigal nga wax nañ ñaan ci lii dugg ci diggante Wally Seck ak waa jamra xaw ma waa fan la sax defar jikko yi ànd defar jikko yi nu mu gën a gaawee na ci def waxtaan ndax bu ci deful waxtaan dana ëpp loxo te du baax te man de bu ma sañoon réew mii di Sénégal yi ñu fi dégg fan yi duñ ko fi dégg ndax démb ci mujj rek ci guddi gi ma am lu may gisaat ci gouvernement gouvernement Macky Sall ñu bëgg a yëkkatiwaat lii dolli ko ci kaw nit ñi. sama émission bi mujj wax naa ne man gis naa ñoo xam ne Macky jox na leen seen mbuus waaye gisaat naa lu gën a yéeme loolu ci gouvernement Macky Sall bi. loolu jeexagut may gisaat ay coow ci ay xale. ay Mansour mbay ñaanu mag ñee la topp loo wax yàlla def ko. Mm-hmm. génnal wax ak waa ànd sàmm ji koy génnal wax ak sa doom Wally Seck lii fuñ ko mën a yëg jëlee nañ ko fa teg te nu fi xam ne nag danoo nekk ci weeru yenentu yàlla Ibrahima muy tabaski ñii ne fi am xar ñii ne fi amuñ xar ñu jël wax yii rek ne ci nanu waxtaanee weeru tabaski lan moo waral tabaski ak li fi indi tabaski mm-hmm. ustaas am nañ luñ wax nag ñu mit waaye ma fonk oustaz bu mel ni Hadi Niass oustaz Hadi maa bëgg oustaz bu mel ni oustaz Hadi nga xam ne saa su génnee téeréb yàlla bee ko génne daraay polémique moom doo ko ci dégg oustaz jamono ji ak imaam yi li ngeen di dox dëgg la am réew mu alaaji Maalik ne sëñ Tuubaa nekk fa Baay Ñas ne fa Limaamu Laay nekk fa waruñoo waxtaanee lenn lenn lu dul ñooña waaye nag jamono bii ñu toll li ñuy waxtaanee baax na lool waaye jikko yi ñu baax it baax na lool waaye nañu dellu ci jumaa yi waxtaanee li xew muy tabaski gi ñu dëgmal. waxtaane lan jikko yu rafet yii nga xam ne moo war tabaski yan ngenee la ci ne ku ko def lépp yan yokkute nga ci mën a am ki ko ki nga xam ne mënu ko it bu ko deful lan la ko ca yàlla dimbalee. yii lañ war a waxtaanee defe naa alaaji dégg. sëñ bi ana la ngay tàggatoo ak looy ñaanal askan wi seetaan ci MPROD TV. man daal li may ñaan mooy ne. pelante bii nga xam ne Wally Seck seq na ko waa yilif seen jikko yii. ànd yilif jikko yii. maa ngi koy ñaan na ko retiré. na ko retiré. na ko retiré. wa axiru daxawaana an alhamdulilahi alamin wasalaamaaleykum jërë ngeen jëf. ci barkeb say xi faddilu buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi barkeb sayxi fàddilu mi buru yàlla ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi barkeb sayxi fàddilu mi buru yàlla ay maqaama yàllaaw